allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg suñu kanam te ànd ak wér di nuyu njabootu Serigne Touba gépp di nuyu boroom xam-xam yi ak kilifa diine yi fi teew ak njiite ñi jiite ñépp mbootaayu lislaam yi di nuyu sama nattango di ministre docteur Cheikh Mouhamadou Omar Kone bi bàyyeekoo Mali te yore fa lépp lu jëm ci wàllu diine di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala sëriñ bi am nañu mbégte mu rëy teew fii ci barab bu sell bi ànd ak délégation du président yénni ñu ràññee ci jëwriñ ji nga xamante ni moo yor lépp ci lépp lu jëm ci wàllu famille di madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng mu ngi ànd tamit ak le ministre Dame Diop nga xam ne moom le président dénk lépp lu jëm ci wàllu xëyu ndaw mi Pape Amadou Ndiaye mu ngi ci délégation bi le ministre Pape Amadou Ndiaye yor lépp lu jëm ci wàllu artisanat bi ànd tamit ak le ministre Yankhoba jatara yor li nga xamante ni moo jëm ci wàllu économie numérique mu fekk si fi waaye mu ànd ak ñun tamit di le ministre Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma léegi Serigne Ablaye mbay leeral na ko mu am fii taxawaay boo xam ni taxawaayu ñaari tànk la benn bi ministre conseiller la ci présidence beneen bi mooy mu bokk ci njabootu sëriñ bi ba noppi am liggéey bu rëy bu muy def ci wàllu comité d'organisation bi am na tamit ay député ak ay hauts conseillers yu ànd ci délégation bi waaye ki nga xamante ne moo teewal njiitu réew mi fii ci bopp région bi teewal fii lépp loo xamante ni dafa jóge ci gouvernement bi muy gouverneur Njaaréem ak préfet wu Mbacké ak sous préfet wu Ndaam ñu ngi tamit ci délégation bi sëriñ bi suñu ñëw tey président de la république son excellence Macky Sall daf ñu yebal ngir jottali nuyoo ak ziyaare bu bawoo ci moom jëm ci xalif général des mourides sëñ Muntaxa Mbàkke na fi yàgg te ànd ak wér jëm ci njabootug Serigne Touba gépp waaye jëm ci mbooleem jullit yi ak taalibe yi di ndokkeel ci turu président Serigne bi ci bés bu tedd bi nga xamante ni mooy màggal gi di sàkku ci moom ay ñaan waaye di ko ñaanal yàlla sàmm ko sàmm mbooleem njaboot gi mottali naal yi ak yéene yi mu am ci liggéeyal sëriñ bi ak liggéeyal ko lislaam bépp ci barke sëriñ Touba sëriñ bi président Macky Sall yàlla dafa dogal ak cofeel dox ci diggante ak sëriñ Mountakha te loolu jiitu na sëriñ bi toog jotaay bu sëriñ Touba dolli ci ko mu am ak yëpp ak fonkeel gu rëy nekk ci seen diggante te waxtu wu ne président ñu ngi koy feddali ci wàllu bis bi daf ñuy soññ saa su ne ci bu bis bi dikkatee ñu taxaw ci taxawaay yi gën a rafet ba tax na boobu ba bu yàgg ba léegi ñu ci am ay jotaay ak di ci amal ay lël yoo xamante ni lan waralu ko lu dul su bis bi ñëwee ni ko sëriñ Cheikh Ka waxee léegi bis bi mel na mu daa mel wala mu mel ni ko gën a rafet président moo tax bu màggal gi ñu koy séentu saa yu ñu koy séentu day joxe ndigal ci lépp luñ ci war a def ñu def ko ba lépp jaar yoon li nga xamante ni nag mooy màggal gi xam nañ ni ak cant la ñu teew fii di sant yàlla moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñu may xéewalu teewee bis bu tedd bii di ci santale sëriñ bi boromam moom ni ci yàlla defal xéewal yu rëy yam ko defal ba mu woo ñépp ngir ñu sant ko sëriñ bi waxoon na ni shukru ilaahi xaana fi turaabi baxda jamili sabri fi ixtiraabi sant naa sama borom ci sama biir réew gannaaw muñ gu rafet gëma ca fañ ma doon tumurante bis bi mooy màggal laata muy doon bisub sant bisub nattu ak tiis la doonoon yàlla tànn ci jaam bu mu sopp te gërëm ko jox ko bu mu war a liggéeyalee lislaam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu war koo jaare ci ay nattu ak i tiis waaye fekk na yàlla ca nattu yooyee lay dëxëñ ay mayam ak i xéewalam mu mel ni sëriñ sëriñ bi dafa jël nattu yooyee def ko buntu yéegukaay ngir mën a jaar mën caa jaar ba jege boromam am fa cër ya gën a réej fa yàlla taxañ yoonu gaa yu baax ni àgg ca maqaama ya gën a kawe te loolu lépp bu dul woon tukki bii ak liggéey ba mu fa liggéeyal yàlla du mën a am ni ko sëriñ bi waxee ci midaadi yàlla moo ma taxañal yoonu gaa yu baax ni waxtu yu ma koy liggéeyalee ak a tagg boole ca fajal ma samay aajo tàggatal ma ko te jàppandel ma ko màggal kon mooy sant yàlla cant nag ñi ko sëriñ bi leeralee ci masaalikul jinaan mooy nangu ñu xéewal yi nga am yépp yàlla moo la ko jox nga jël xéewal yépp delloo ko yàlla ci say wax ci say jëf noonu la ko sëriñ Basiiru Mbàkke mu baax mi leeralee tamit ci mbindamul baaxil xadim cant nag dafa bokk ci maqaama yi gën a kawe ndax jaam bi lu mu am ci yàlla la jóge kon li war mooy delloo ko njukkal ciy waxam ni ma ko leeralee léegi ciy jëfam doxalinam ak nekkinam ci kaw suuf moo tax daanaa faral di dégg sëriñ Saliou Mbacké mu baax ni di ko fàttali muy aaya ixmalu aala daawuda shukran moom la suñu borom digaloon njabootu yonentu yàlla daawuda ga waaye sant dafa jafe moo taxit yàlla mu ngi fàttali ni ñu néew néew ci jaamam yi ñooy ñu koy sant ba tax na ci alquran karim fu yàlla indee sant li koy safaanalee mooy weddi kon day wone dayoo bi sant am ci diine Serigne Saliou tamit daan na ci teg di wax ni doole ji sukkur am ci yiw kufr am na ko ci safal waaye ndokk yàlla dafa fekk sëriñ bi yéene ñu jàmm muy Cheikh Ahmadul Xadim yéene ñu def yépp jàmm moo tax mu boole ñu ci cant gi digal ñépp ñu sant ko boromam ci li mu ko defal kon maa ngi ñaan yal nañu yàlla boole ci ñuy dugg ci cantuk sëriñ bi te nangul ñu ko kon sëriñ bi président mi ngi feddliwaat mi ngi feddliwaat yéeneem ak taxawaayam ci jàppale sëriñ Muntaxa ci liggéey bi yéeneem ci dëkk bi rey na lool yàlla dogal na mu jot mu jot cee def yu bari lu ci mel ni wàllu assainissement ba ci hôpital Cheikh Ahmadul Khadim bi mu fi doon inauguré ci fan yi naal bee Serigne Mountakha am te Cheikh sëriñ Cheikh ka fàttali ko léegi muy ci université Cheikh Ahmadul Khadim bii ngir liggéeyal sëriñ bi liggéey bu kawe boo xam ni askan wépp ko tax a jóg yitteel na président lool te bàyyi na ko xel fas na ko yéene ànd ak Serigne Mountakha ak bët sumb boo xamante ni am na ko président mi ngi sakk bu baax ñaanuk Serigne bi ñaan yi muy ñaanal réew mi tamit ñëpp teg nañ ci seen bët kon suñu yaakaar gën naa dolliku di ñaanal yàlla sàmmal ñu ko te mottalil ko yéeneen yépp ñu yàgg ànd ak moom bis bi te daje ci ak tuyaaba yi gën a kawe wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu